salaamaaleykum yaay booy. maaleykum asalaam wa rahmatullah. fàttaliwaat ñu tur bi. Maymuna Bàccili. ah démb de fi ñu la fekkoon ak fii ñu la fekk tey dafa wuute fii nga fanaan nii nan nga fi dundee gannaaw ñaar fukki at ak juróom-ñeent yoo xam ne yaa ngi doon yeewoo sa kër. xanaa fanaanee xoole ba bërsët ndax fa ma dëkkoon ak fii bokkul fii dama ñëw ñu abal ma benn néeg maag sama njaboot dëkk ci cité Claudel 28 ans 29 ans ñu xëy suba teel rek jox ñu délai dix jours pour ñu génn génn bi ak pandémie bi mënul nekk li ñuy wax nag ak li am ça nee nañu borom kër yi ku ci nekk tabax nga sa kër amul fay nañ leen vingt millions amul amul am na ñu ci am kër seen kër fondement rek la ñu def lii ñuy fanaani biig nag metti na trop trop trop trop trop dañu ñëw gaari seen camion yëpp suñuy bagage pour yóbbu ñu stade amitié mais stade amitié nan lañ ciy demee ak feebar bi nga dem foo xam ne kenn raxasul kenn deful dara nga ñëw bugg a dëkk ci stade bi man moo tax dew ma ci stade bi dama ñëw ñu abal ma néeg néeg baa ngi nii ma dank ko fekk sama njaboot wàcce tànk sax kenn mënu ko ndax xat waaw ah, booboog léegi est-ce am na autorité yoo xam ne nii euh, jot nañ leen booboog léegi autorité woo ñu xanaa mennum Abdul Karim Fafana moo ñu gëstu ak monsieur ak maire fan Point E ñëw na en secours ñëw na fa Karim na it wax dëgg yàlla génnul ci ñun fu ñu mën a nekk ak li ñu nekk mi ngi koy diisoog ñun maire Fann Point E mook ñun tamit ñoo yend foofu waaw fan gi yëpp mobilisé nekk benn ñëw ci suñu ginnaaw yëf yi metti lool. léegi ak jamono bi ni mu mettee da nga fas uti foo loué wala da nga toog fii ak sa njaboot ba yàlla dikk ah fas yéene looy luwe ku sa loxo jotul sa ginnaaw borom kër gi mu ngi en retraite dooy luwe fas yéene toog dankilu ko rek ba yàlla ñëw fekk ma fi metti na nag trop trop trop ñu ut secours nag ci monsieur le président mu lii mu lijjanti ñu ko nu mu gën a gaawee ndax metti na ci borom kër yi trop trop trop fay sàll en tant que jigéen di suñu sœur di suñu doom moom tam ñu ngi koy tàllal loxo ñu ngi koy tàllal loxo ndax lii avant muy am def nañu tout pour gis ko mais amuñu fu ñu jaar looloo tax sax li fi yegg si fii ba ñu lii dalee rek 10 jours yi rek fu ne daw nañ fa pour mën koo jot mais amuñu fu ñu ko jot ñu ngi koy tàllal suñu loxo nag jàppale jigéen ñi ay sëram a fi nekk ay magam ay tàntam ñoo fi ne ne ci mbedd mi taxawaalu ak seen njaboot am na ñoo xam ne seen doom yi dañuy def bac kii doomam di def bac ñu génne ko mu dem taxawaalu ji kenn xamul fan la jëm loolu metti na trop trop trop ñu ko ciy ñaan secours nag. léegi ñi nga xam ne ñu ngi leen di seetaan te bëgg leen dimbali fan la ñu war a mun a jaar ay adresse wala ay numéro yoo xam ne dinañ leen mën a jot. ah xanaa ñu joxe suñu numéro téléphone yi rek euh, ci 77 240 65 15 waaw ñu tàllal ñëpp loxo nag waaw ko suñu président mu ne dimbale nag te dëkk moo ñu gën a lépp. bu ñu mënee dimbale moom fu ñu dëkk moo ñu gënal lépp lu ñu mën a am. ban kàddu ngay tëjee tey. ah di gërëm di sant di gërëm di sant waa Fann yëpp di gërëm monsieur ministre Abdou Karim Fofana di gërëm maire pala Samb wax dëgg yàlla ñëw na ci ñun def secours ànd ak délégation Karim Fofana itam yebal na fa délégation ñoom ñëpp ñu yendoog ñu bokk ak ñun naxaar bi ñu leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla.